asalaamaaleykum très chers internautes ATV bienvenue ci seen émission de A à Z comme ni ne di leen présenter seen émission tous les samedis à 18 euh, leen jaajëfal bu baax a baax ci seen fidélité di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm aussi di ko sàkku ci yéen laata loolu dañuy nuyu kilifa kër gi di ko ziar bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di leen ñaanal jàmm yéen ñi nga xamante ne à chaque fois yéen a ngi toog di ñu seetaan tey nag dañoo am invité benn jeune talent boo xam ne mën na lu muy def mu ngi def ses preuves mi ngi def ay concours mi ngi remporter ay prix di ko euh, ndamo bu baax a baax euh, sénégalais yi aussi nawloo ko macha allah tey nag moom la ñu invité ci suñu plateau fas yéene waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ne mooy parcours am mooy jaar-jaaram ma bàyyi ko mu nuyoon teg téléspectateurs yi asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum Sénégal. asalaamaaleykum bon. maa lay nuyu Zara di nuyu aussi seen kilifa kër gi bu baax bon c'est King Soor Xalima comme ni nga ko waxee maa ngi nuyu aussi waa Ndangal ma gi ma jugee di nuyu waa Thiès am naa fa parti waaw xam nga ak waa HLM Grand Yoff waa université Cheikh Anta di nuyu sama staff waaw di fekk temps bi bëriwul moom pour lim day metti mais maa ngi nuyu Sénégal di nuyu képp kuy bëggee King Soor Xalima daal. voilà di nuyu aussi sama yaay bu baax a baax a baax. d'accord ñu ngi suñu maman yi di ziar sa maman mm-hmm. parce que bu du woon suñu yaay yi tey lii yëpp du possible di di sant yàlla aussi ci euh, di la remercier ci disponibilité bi nga xamante ne wane nga ko bi ñu la invité. Mm-hmm. Euh, King Soxor Xalima comme ni ñu koy defee saa su ne du metti lan mooy King Soxor Xalima parce que nag mooy surtout dëggantaana ah. xaw ma nan nga def nag ba boole King. boole Soxor Xalima boole Xalima. voilà en fait euh, bon King Sohar ma nekkut loo xamante ne ni dañoo tëb a tëb tuddee ko suñu bopp parce que si crew laa nekkoon dama koy a à chaque fois su ma demee si émission sama rakk bu ma bokkal ndey ak baay moo nekkoon si crew bi ak ak xaritam ñoom ñoo ma njëkk a rab sax mais bon di fekk ni affaire bi neexoon na may tout ma daan nekk gàlle ñoom ñuy répété kenn moom mu tudd Kamal beneen booy bu tudd Xalil quoi léegi ñu bëgg xam nga naajsal affaire yi pour logo ou 3K. léegi trois cas yi mooy ni sama tour King ma intégré euh, si si crew bi bi ñu demee nag ba si biir ma war a dem solo et tout man fekk bon gars yi moom dañuy déglu rap ma yéeg benn concert wàcc benn grand ne ma saa yi da nga soxor xalima xam nga lool est-ce que yaa ngi koy seetlu da nga soxor xalima léegi au début ma ne pourquoi pas ñu naan King aka soxor xalima léegi nag ñu dem ba si biir ma ne bon kon King soxor xalima bi loolu mooy baax quoi affaire yi nag foofu la jógee loolu moo indi king soxor xalima parce que dama naa ba ne pour quoi pas ma jël soxor xalima bi kese ou bien ma jël king soxor bi kese mais dama ne bu si nekk segam dafa am fu mu jógee waaw te loo xamante ni tamit c'est historique donc naa ko garder quoi comme king soxor xalima. dafa dafa am fu mu jógee quoi nekkul loo xam ne dañuy tëb tëb nii rek. Mm. créé ko mais dafa am fu mu jógee quoi. d'accord king soxor xalima lan mooy Ali Ngom oui. Ali nga bàyyi Ali ñëw nekk King Soxor Xaali sol bu artiste bi. voilà parce que ñaari ñaari ñaari ñaari personnage la aussi. parce que alingom Ngom ak King Soxor Xaali ba tey bokkul. voilà d'accord léegi wax ñu tuuti ci Ali avant ngay dugg ci euh, carrière euh, rappeur avant ngay euh, bëgg nekk artist mhm. bi nga nekkee ndaw nekk tout tànk fi nga juddoo fi nga màggee fi nga évoluer fa nga jàngee. en fait euh, je suis de Thiès Thiès laa dëkk bon sama papa foofu la dëkk voilà débuté samay études bon nekk fa ak sama yaay ak sama papa mais du fait que sama yaay moom ndàngal ma la dëkk bawal bon bi ñu demee ba xam rek ak grande famille yooyu noonu après ñu ñibbi bon sama yaay jóge Thiès ñibbi waa ndàngal ma man aussi. ñu dem fa si moom mais dañ faraan dem di ñëw affaire yooyu noonu léegi nag en 2013 ci la sama papa décédé Thiès quoi sam papa décédé léegi ñu ci la ñibbi définitivement ndàngal ma mais man maa ngi commencé jàngee ndàngal aussi cm en CM1 laa commencé ndàngal ma foofu laa amee nag sama bac waaw ba ni ma demee université. voilà. Euh, boobu maa ngi def troisième nag boobu maa ngi def BFM. bi may def waaw maa ngi def BFM. d'accord nan nga euh, boobu la. en fait bon métti na métti na parce que royukaay la woon si man. te maa ngi moom dañu amoon benn complicité boo xamante ne nii euh, kenn mënu ko expliquer wax dëgg soo yàlla parce que xale laa. mais daf ma daf ma doon tàmbal yenn attitude yoo xamante ne nii daf ma manqué. daf ma manqué su ma ko waxee ak su ma ko waxul yëpp. mais sant yàlla parce que am na lu ma fi bàyyi loo xamante ne nii muy ngor fit dignité ak gëm sama bopp parce que loolu la loolu la daan dëkkal sama nopp waaw ak jaamu yàlla aussi vraiment te regretté ma ko malgré que bon dem na mais je me dis je, je toujours que ni moom mu ngi fi parce que maa ngi fi quoi. parce que li nekk si moom daf koy bàyyi si man ba pare dem quoi. voilà. média bu mu demee nga doon def BFM examen mhm, mhm. yombul nga nekk doom bu góor mhm. après nan ngeen ko doom dundee situation bi mère bi ak sa jàng bi parce que lépp dama ne ndogal yàlla la parce que avant mu décédé am na ñoo xam ne ñaakoon nañ seen ay parents am na ñu xamul seen yaay am na ñoo xamul seen papa kon sant yàlla la ba bi ma demee ba xam ko xam nga am lu ma jànge si moom mu doog ma woon ginnaaw donc dama ne bon c'est pas la fin du monde en fait day dem suba man damay dem keneen ak keneen day dem toute façon naa def le tout ba moom fi mu tëdd na kontaan si man quoi loolu la rek e je me suis dit que ni c'est que maay taawam aussi bon peut-être daf ma daf ma jox ay lenge pour ma war a mën a soutenir famille bi pour ma pour ma war ci mën a génn famille bi parce que bi may nekk xale période boobu loolu nekkoon na sama bopp trop trop trop vraiment te ba tey mu nekk si man voilà. mais mu metti tamit loola ah, parce que doom bu góor nga loo mënti jàng-jàng tamit yenn saa yi dina am forcément dara lu war a ñëw kër gi mhm. lu papa ji doon def léegi nekkatu fi léegi yow nan nga doon def côté financier bi pour a ah, mbir yi dox mën naa ne boobu metti woon na parce que bi ñu jugee Thiès ñu ngi ñibbi suñ kër famille Ndangal ma mais aussi chance bi nu am mooy que ni du fait que bi kër papaam la ñibbiwaat xam nga bon yu bëri tamit dina xaw a mën a léger parce que c'est la même famille bon euh, malgré que loolu yëpp am na mais damay wax tamit que ni quel que soit alpha famille bon lu nekk ci grande famille aussi am nañ benn famille boo xam ne sa particulier muy man ak samay rakk samay mag ak sama yaay quel que soit alpha ak lu mu metti metti ñoon aussi man maa leen si war a mën a génne man maa leen ci war a mën a génne metti woon na neexoon na parce que nag koo xam na ne kër famille bon ay yi ci suuf ak yooyu noonu xam nga du lépp lañ mën a wax quoi mais euh, compréhension ak vie bi foofu neexoon na xam nga duggante bi suñu biir dundu familial bi aussi village dafa neex waaw moo tax ma bëgg ma bëgg ndàngal ma bu baax a baax waaw ndàngal ma rek laay topp. macha allah euh, léegi euh, moo la gënoon marqué bi nga nekkee xale li la gën a marqué li la gën a touché. li ma gën a touché mooy sama carrière football. parce que bon ah, waaw parce que je ah, <laughs> football mën naa ne bi ma nekkee Thiès ah. képp ku ma xamoon Thiès ci football nga ma xamee woon wax dëgg sa yàlla man bu nit ñi bu nit ñi demee ci velo yi dem cascade wala ñuy dem jàngi moto man jàngi école laa xam dem football ah vraiment man mhm. football dafa nekkoon loo xamante ne nii mhm. bon sama rêve la woon quoi sama rêve la woon vraiment mhm. te damay toog di xam ne daan naa def ay sacrifice doon sàcc di dem yenn test yi affaire yeneen ak yeneen. mais bon yooyu aussi daf lay marqué quoi vraiment daf lay marqué. Mm-hmm. en plus am na tamit yenn vécu yoo xamante ni nii amoon na. Mm-hmm. ci biir famille bi yooyu du ma ko fàtte yoo xam ne sama bët la xam nga. Mm-hmm. yooyu yëpp daal. vécu yoo xamante ci biir famille bi la. voilà bon côté positivité ak côté xam nga. xam nga mais xam du lépp lañ mën a kii quoi ah, mais mais mais li tax li tax loolu marqué ma. parce que vécu yooyu ñoo ma jàngal àdduna. vécu yooyu ñoo ma yar. vécu yooyu ban nga ci mën a jël nga partagé ak ñun ah, ku ci nekk aussi mën cee gis boppam. mooy li sama yaay liggéey sama kër papa. sama bët quoi kenn nettaliwu donc vécu yooyu noonu dafa am lu mu def si man. voilà moo ma teg si yoon moo ma xamal man maay kan aussi. vraiment. nga jàng ba bac. Hmm. nga wax nga bàyyi euh, école wala da nga dem université. ba daaw maa ngi woon master 2 en anglais. waaw ah, xam nga rek ah, je <laughs> damay takkale nii rek <laughs> damay tàkkale nii rek xam nga waaw maa ngi waroon soutenir sama mémoire depuis daaw mais xam nga mhm. bon du fekk aussi man mënuma toog comme li ma la wax rek mhm. euh, dëkkuma Dakar mais maa ngi fi di joxe ay cours ci école privée yi xam nga ak ay renforcement mhm. pour am dara loo xamante ne nii su ma bëggee génn son dinaa ko si def su ma bëggee génn projet naa ko si def mais principale cause bi mooy loo xam ne naa ko mën a yëkkati dem jox ko sama yaay. macha allah dem jox ko sama yaay jox ko famille bi quoi. parce que mën naa ne bu fekkoon man ak man man rese la mën naa toog dëkk ba xaar yàlla xaar ba heure bi sama carrière ñëwee. mais mënuma toog di seetaan maire bi wala may seetaan famille bi daal loolu moom gën a poussé ma ñëw Dakar xam nga di daan sama doole. souvenir bu la marqué nga ñuy wax ci sa diggante ak sa maman ci sa diggante ak sa yaay loo xamante bëri na nag mais bi ma gën a marqué mooy bi ma genre bi ma waree bi ma amee final si ses si ses su ma juumul waaw compétition ma dem final ma lijjanti affaire oto affaire yooyu noonu affaire yi dëgër quoi xam nga ak projet yi affaire yi dëgër j'avais pas les moyens bon ma ne ma toog ak moom di waxtaan ma ne ko est-ce que du ma bàyyi est-ce que du ma bàyyi rab mu dal sama kaw. am dix ans kat yi li nga nekk yàggoo si d'accord mais ba nit ñi commencé la si xam nga commencé am tour bàyyi lu bëri ndax lii bul ma yàpp bul ma fontoo <laughs> xam nga ma ma ma comparé ak ñi nga xamante ne ni peut-être seeni parent dañ leen di tere wala bëgguñu li ñuy def mais moom comprendre na ma ba maanaam xam na ne ma lii nii bëgg naa ko te aussi am na fu ma si àgg mu mm. soutenir ma loolu lu ma marqué la quoi souvent loolu lu ma marqué la vraiment mm. buñ daan ànd di jaay buñ daan dem Tiwaawan wala Touba wala fenn mu daan jaay ma dem ànd gàddu ko plat di jaay loolu aussi bon man jaay naa ay kurus fer fer yi jigéen ñi takk jaay naa ko waaw daan naa ko ah, jaay bon <laughs> xam nga nekkul loo xamante ne nii damay damay am complexe wax ko maanaam jaay naa ko quoi dem naa jaala jëndal si maman voilà dem naa jaala ci sama yaay parce que moom yooyu la doon jaay ay jaaro affaire yooyu ay fer ay jaaro ay col yooyu noonu dama doon ànd ak moom nag su ma demee bon daf ma daan yóbbaale mais genre mhm. da daan kontaan ci yóbbaale ma sax parce que su ma demee du ma damay wax damay wane que ni sama yaay laa koy jaayal. Mhm. ak lépp muy kol yi muy fer yi muy lépp. Mhm. waaw képp ku ma xamoon xam na ne bon mooy loolu quoi. vraiment dëgg la daan sa doole dignement. waaw daan sama voilà mhm. euh, bi école bi ak li nga doon jàppale sa yaay ban métier ban liggéey nga mus a def wala mise part musique bi defe woon dara. man nag euh, je peux dire depuis ma xamee xamee ba tey tooguma quoi. parce que jaar na waaw jaar naa si weef bi ah Wave bi doon naa ay paiement marchand yi mhm. jaar naa ci xam nga sol naa ci ak yeneen ak yoo xam ne samay morom ñu ngi koy def yu bëri yoo xam ne moom bon képp koo xam ne xam nga li la waru boo tëddee vingt quatre heures yoo xam ne yaa ngi sa kër defoo dara da ngay tiit même su ma toogee yoru moon dërëm tamit des fois gars yi dinañ sàcc bu ñu déggee ay manœuvre nii des fois nga sàcc dem xam nga dem waaw dem maçon yeeg yooyu des fois su ma ñëwee Dakar aussi mënu moon toog doon naa liggéey si wéef yi xam nga ak yeneen ak yeneen quoi vraiment. yow ma dugg ci terrain bi. non bon xam nga rek boo tolloo fenn fii pour man amatoo droit toog quoi amatoo ah, droit toog. fii war na andi revenu rek da ngay jug. voilà man moom man noonu laay doxee quoi. Mhm. peut-être nag du wax parce que ñu bëri bon ñu bëri xamuñu ma ñu bëri yaakaar nañ que xamuñu man ci li may yëngu. yàlla xam na ko peut-être émission bi dina permettre ñu bëri xam ci lu may yëngu mais ñu bëri xamuñu ndax man genre damay dem école damay jàngale wala lii ak lii ak lii. Mm-hmm. léegi fans dinañ xam kan mooy king. waaw fans yi waaw fans yi waaw fans te yoon la ñu xam ko sax te dinañ ma gën a xam nag. incha allah dinañ lépp fii lay xewee ci biir euh, émission de A à Z léegi ñu dugg sa biir carrière. Mm-hmm. kañ nga commencé def musique def rap. bon mille dix neuf mille vingt deux mille dix neuf deux mille vingt su ma waaw mais maa ngi ci dugg dëgg ay deux mille vingt yooyu noonu deux mille vingt ci laa ci laa xam ne man bon ci laa commencé di génne ay single deux mille vingt deux mille vingt et un boobu noonu waaw. lan moo la inspiré inspiré lan moo la poussé ba dugg ci wala c'était juste benn moyen nga ne xaar ma dugg ci pour tekki wala depuis bi nga nekkee xale da ko yàgg bëgg. non comme li ma la wax man musique nekkul woon si man man football laa gëmoon quoi ah. mais. comme genre comme les autres artistes le diis que ni nit moo leen inspiré man nit inspiré wu ma vraiment genre dégluwuma nit que ne kii nii li muy def nii war naa mën a tax ma dugg si rab mais yàlla moo moo def si man loolu quoi man dama koy wax fépp dama koy wax fépp yàlla moo moo moo def si man bon talent boo xamante nii toog naa yëg ne lii mu ngi si man xam nga ma xam ne lii nag dama ko war a génne partager ko ak nit ñi waa aussi ma dem nag ba gëm ko ba def ko métier wax dëgg fa yàlla dem ba def ko métier métier laa ko def parce que defuma ko passion kese dama dem ba def ko métier mu jaral ma nag. ma ma yaakaar ci xam nga yaakaar ci ay disque door yaakaar ci leneen ak leneen ak leneen incha allah. voilà incha allah euh, King euh, bi nga commencé carrière dara yombul. ci live bi ah dara yombul internet yi sax xam nañ ko dara yombul bi nga commencé yan difficulté nga rencontré ci milieu parce que nag milieu bi dafa sournois. en fait euh, damay commencé sama sama sama site quoi parce que Ndangalma village ku ne xam na ni bon côté yooyu noonu gars yi dañ leen a genre musique bi gars yi gars jël lu si bëri ñu ñu ñu ñu concentré ko biir dakaar wala yeneen région yu mag yi d' accord Ndangalma région de Diourbel la bokk mais li ngay génn Jurbel ci ay artistes yu mag yu gars yi xam bëriwut à part waa express peut-être donc euh, kii yi dañ doon am ay problème dem studio yeneen Bambey lañ daan demee studio mm-hmm. muy man ak bépp artiste bu fa nekk parce que ay talent kese ñoo fa nekk mm-hmm. même bu dul rap kese côté théâtre bi ak yeneen ak yeneen ay talent kese kese kese ñoo nekk ndàngal ma mm-hmm. muy ay Big Flash xam nga ay Best Boy ay Black Team xam nga ay MC Yéeme King Fadel yeneen mm-hmm. ku juum ay son lay di xam nga lu Fanza ak lu ñoom ñëpp mm-hmm. lës bi xam nga Rignes ku lim daal da juum mm-hmm. ay bon som benn booy capitaine ñooñu ñëpp je peux dire bon li ma doon dund la ñuy dund mu metti parce que dañ daan dem euh, fële Bambey pour ñu jigee Bambey des fois da ngay dem doom oto parce que ci studio bi ci marché la nekkoon léegi da ngay ñëw da nga obligé guddi nga wane prise mënoo prise bëccëg parce que ak bruit beeg yooyu léegi boo priser ba guddi boo amul lu la indi da nga obligé dox ba ndàngal ma way laa nga fanaan ci marché bi ba ndàngal ba ba bët set jot nga si ah waaw boo amee chance tamit di nga am lu la indi xam nga yooyu yëpp ay vécu la yoo xamante ne nii ak bon bi ngay booy doog di débuter nit ñi xamuñu la si kaañoo nan ma si ba taay bon <laughs> mais je me waaw mbalak la si xam nga koo xam ne xamula si rab. waaw gis la ngay rab wala dégg na génn nga son ay ree nga koy def. ah bon affaire yooyu léegi nag yow boo gaawee découragé. Mm-hmm. bon mais ñoom danga leen di comprendre parce que ñoo xam ne xamuñu la si dara ñu xëy xëy gis la ci. Mm-hmm. surtout ma milieu musique. complexe. man moom moo leen jàpp ko non bon du ma ne complexe. bon du ma ne jalousie aussi. Mm-hmm. du ma ne jalousie du ma ne complexe mais peut-être ñàkk na xam kii nii lan moo ko si dugal ak kii di ne si moom. mais man je me suis toujours dit que ni li nekk si man ak ñi nga ñi ma gëmul bisañ ji bés yi dinañ xam man maay kan ak lan moo ma si dugal te bés boobu àgg nañ ci yàgg bon yàgg na bi ñu ma xamee yàgg na biñ xamee man maay kan ak li ma si dugal yàgg na ñu may jàppale aussi waa ndàngal ma waa ndàngal ma fu ma jóg ñu jóg xam nga lu ma dugg ñooy si vraiment waaw waale ñoom tamit bu baax a baax euh, loolu noonu ngay dégg wax ju nekk mu metti lool euh, loolu tamit lan moo tax euh, déstabiliser wu la poussé wu la nga am benn manque confiance ci yow ci sa bopp parce que damay dama doon déglu bi ma duggee ci musique dama doon déglu old school yi te dafa am dib dund gis dafa am benn parole bu mu mës a wax boo xam ne ba tey daf ma intéressé mu yàgg naa dégg wóop yàgg naa dégg wuu mm-hmm. xam nga mm-hmm. léegi loolu noonu nga comparé ko ak fi dip egg si jamono jii nii. da nga naan kon est-ce que loolu mu daan dégg noonu mës na ko déstabiliser. wallaahi waxati ko. xam nga beneen bi mooy da nga da ngay xam ne ci lépp loo mën di dugg. Mhm. ci domaine boo mën di nekk. Mhm. début bi dina metti soit nag degré bi méttaay bi wala soit yow maanaam ci lan lan lay qualifier parce que am na ñoo xamante ni peut-être ci parole la am na ñoo xam ne ci ay moyen la am na ci ñoo xam ne yeneen ak leneen ak leneen donc lépp da nga koy boole rek bu dikkee yow nga nga a song lool parce que yaa ci dugg. di nga gis bu nekk di gis ñoo xam ne dinañ taxaw ne la booy fonce début bi di nga am ñoo xam ne dinañ taxaw ne la booy bàyyil dina am ñu taxaw fële xam nga mais bul calculer ñoon ma ñëpp laa boole bëgg quoi ñëpp laa boole que ni ñii nii ñoo may topp parce que ki ki naan ma fonce bëgg na ma ki naan ma aussi booy bàyyil doo dem kook mu may may courage à que li ma bëgg moom du ko am ko vraiment. selon toi tey euh, naka nga surtout rap bi. milieu rap bi ici au Sénégal nan nga ko gisee. bon nice man je dis nickel quoi parce que booy ku si nekk yaa ngi def li nga fiil xam nga booy ñu ngi def loo xam ne nii moo nekk si ñoom ay bindkat ñoo fi nekk. ay talent ñoo fi nekk. te am nañ ay icônes yoo xam ne bu ñu royee si ñoom. bon Sénégal dina gën a dina dina dina gën a kawe quoi incha allah. selon toi amul ay discrimination genre ñi bokk nañ ci ñi bokk ñu si. bon bon du ma ne genre côté boobu mën naa du ma ci sori quoi parce que. du ma ci sori nag. non <laughs> parce que du ma juger quoi du ma juger kenn parce que. xam nga tey jii xam nga tey jii mais analyse la. waaw d' accord d' accord xam nga tey jii du ma ne kumba am ndey kumba amul ndey parce que man je veux dire dundaguma loolu man vraiment. ah dundaguma loolu. malgré que dem naa ay compétition perte quoi mais musuma taxaw daane compétition yi bon du ma ko même su ma toogee wax ko mm. aussi du ma ko dund. Mm. parce que bu fekkee loolu la rek. kon képp ku jël compétition da nga naan mérité wu ko. bu fekkee heure boo peetee compétition da nga naan genre peut-être dañ ma kaa xañ ñi non non am na yu ma jël am na yu ma perte parce que euh, première saa fa euh, université Cheikh Anta Diop j'étais le vainqueur c'était en 2021 2022 biñ ci demee ki nga xamante ni moo jëloon deuxième ci compétition boobu prochaine année bi moo jël flow up flow up bi ma nekk ren nii bi ma nekk nii en demi finale di lancer message bi aussi gars yi dooleel ma ñaan parce que je suis en demi-finale ci flow bi maa ngi war a jouer le 26 institut français bëggoon naa tamit ñëpp ñëw soutenir ma mais xam nga di fekk foofu les places sont limitées artiste bu nekk dañ la may vingt personnes pour nga indi ko donc bëggoon naa waa dëkk ba def ay oto ñëw. mais genre compétition boobu bon national. moom la Ngaaka na njëkk a jël. Mhm. One Lyrical jël na ko. gën moor récemment Las Melo macha allah donc bon ay jury lañ ñoo xam ne am nañ ci ñoom yaakaar ñoo xam ne da ngay bon ñun boog ñun luy suñu waarugal mooy dem bind créer am lu ñu indi jox leen ñun day nekk appréciation jury ak appréciation publique après ñoom nag lu ñu def xama ñu xam ne lii lañ war a def ko mais ñun nañ def li ñu war a def ñoom bàyyi leen ak ñoom li ñu a def quoi def lu ñu war def bàyyi leen ñoom euh, euh, ci milieu bi nga nekk nii actuellement yow euh, maanaam lan moo ci sa attente lan ngay xaar ci sénégalais yi euh, ci sa carrière. bon promesse la bu may def. maanaam lan ngay lan nga leen di apporter. genre promesse la quoi. ji ma war a jàppale suñ ma jàppalee bon du ma ne man genre du ma ne du ma ne nit jàpp si ci ak côté yi may waxee quoi parce que tey jii nii koo gis muy dem rek am na ku ko teg loxo par exemple ci côté bon par exemple ma am compétition mhm. war a ñëw Dakar mhm. xam nga. j'ai mooy les nit yëkkati kaar jox ma lool je peux jàppale la mais bu dee ay côté bind côté texte côté talent côté liggéey loolu si man la loolu xaaruma ci kenn te soxlaawu ma si kenn vraiment loolu man dama koy dinaa ko chargé taas la boo xam ne maa koy defar sama bopp mais li war a am bu amee gëm-gëm bi ba tey mu nekk fi bëgg-bëgg bi nekk fi xam nga may gis li may gis nii ba tey wax dëgg fi yàlla dinaa fi ndee disque d'or moom. loolu incha allah promesse la quoi loolu la lay ñaanal incha parce que mën nga li ngay def eh, nga def quatre clips euh, quatre clips euh, mhm. te jusqu'à présent xamuñu ci ban maison de production nga nekk exactement waaw man nag actuellement je préfère être libre quoi parce que bëgguma tey ji bon benn parce que d'accord maa ngi ci mhm. maa ngi def ay preuve mais amu àggaguma benn stade boo xamante nii war naa mën a tënku ci dara parce que dama yor feeling dama yor loo xamante ni dama ko war a génne. léegi nag su ma gisee loo xamante ni doy na ma arrangé na ma mu leer ma ne lii nii bon sama avantage mu ngi si te c'est bénéfique mais dama dama si dugg quoi dama si engagé quoi. tey bu amoon maison de production bu ñëw bëgg signé ak yow nga gis ci avantage kon du du doon benn problème. parce que ku artiste bu si nekk loolu nga bëgg. d'accord si nekk boo. soo am maison de production lu ñuy xaar. ah bon peut-être. xanaa gis nii. <laughs> peut mais yàlla baax na xam nga tey jii nii yo euh, bu yoon jeexul waaxusul du jeex. voilà man maa ngi si maa ngi sama liggéey. nañ dem rek incha allah. sa clip yi nga def yëpp ban moo la ci gënal. bon damay jël affaire bon bu dee affaire màggal yeeg yooyu moom bon naa est-ce c'est un peu sensible parce que mm-hmm. xam nga rek loolu yëg-yëg leen koy defee. mais dafa am son boo xamante ni dama ko bind ak xol muy doomu dëkk bi. clip bi ma priser ci àll bi noonu. waaw gis waaw. waaw boobu vraiment parce que dama si wax li ne si man. dama toog bind li nga xamante ni moo nekk si man. booy def clip yi est-ce que di nga di nga am difficulté pour génne ay moyens financiers pour mën a réaliser say clip. waaw parce que clip yi ma def noonu yëpp mhm. amul benn maison de production bu ko def. Mhm. amul benn tamit. producteur bu mag bu ko def sama koom-koomu bopp la mm-hmm. ak benn artiste rappeur bu tudd Yéeme maanaam ak sama ménagère Abdou Touré xam nga Wizapti ma koy nuyu de passage vraiment moom aussi mm-hmm. da ciy sonn mm-hmm. ak ay Ahmed Fall xam nga Doussène xam nga ñoom ñëpp Amar Matar xam nga Amadou Thiam Mansour mu taal ku lim ñoo xamante ni dañ ciy sonn ay kalaamu la ñoom ñëpp Kamal aussi ak sama benn mag euh, bu dëkk Thiès moom aussi cosin la si ñun man ak maman. Bamba moom aussi animateur la. waaw euh, Bamba. Mhm. xam nga dañ ciy sonn quoi. mais clip yi ma jot def noonu. Mhm. benn bi Thiès laa ko defee boobu bàmba moo génn ay moyens mhm. lijjanti ba ma def ko euh, doomu dëkk beeg yeneen ni si des. sama benn moroom artiste boo xam ne ñoo bokk ci nekk ci dëkk bi mais day def affaire audiovisuelle moom mooy dem lijjanti matériel boppam ci rajo bi. billaahi yàlla xam na ne des fois du ko fay duma ko jox dërëm muy sacrifié wul nekk ak ñun soit muy mm. taw wala muy naaj ba tourné loolu clip bi ngay gis nii yëpp bu fekkee nice na mm. moom la te man jàpp naa ne nice na parce que gënal na ma clip bu cinq cent mille waaw wax dëgg sa yàlla maanaam nga am talent nag kii nga am talent bu baax a baax ngay am problème pour def say clip sànq ma laaj la ndax gisoo ni eh, Sénégal eh, millier bi dafa am kumba am ndey kumba amul ndey bu fekkee talent kese yor nga ko mais booy def sa clip yi nga ci am jafe-jafe loolu tamit eh, est-ce que tamit gis nga ni lu jaadu la selon toi. bon parce que talent baa ngi fi. bon je me dis que ni mm-hmm. loolu ñëpp jaar nañ si. artiste bu nekk si kaw tey jii jaar na si jafe-jafe. waaw yoon la tamit jeunes yi du yow kese mais ngeen nekk jeune parce que bëri ngeen ñoo xamante ne am ngeen te tey soxla woon ngeen dimbal yoo xamante ne da leen di gën a faciliter seen travail mais boo leen di liggéey yéen saa ngeen ciy wéet loolu tamit lan ngeen ci lancer appel. bon du ma ne ba tey kumba am ndey parce que dama des fois lu jot dina yomb. parce que man du ma décourager ndax xam naa li nekk si man. man de seega ni Sénégal maa fi dàkkaram. loolu moo am quoi. déggal ma lii dafa am benn grand nag bu tudd Elo. Mhm. dafa am sama benn grand bu tudd Elo kooku day daj ci loo xamante ne nii. kooku conseil fu mu gën a baaxee moom ma koy jox te daf fii. mu ngi HLM Grand Yoff. de passage moom tamit. Mm, mm. waa gàlle bi yëpp ak sama ñoom turandoo kër gi ñëpp daal. macha waaw waa HLM Grand Yoff bi yëpp. toute mm-hmm. façon mm-hmm. bon mm-hmm. dina metti ci nga bëgg génne amoo moyen yi. day metti trop wax dëgg sa yàlla. mais tamit man de je me toujours que ni man maay def li nga xamante ne nii bu danaa dem ba may produire gratuitement. wala ba ma dem ba am sama labelu bopp ak yooyu. loolu nag maa ngi si muy liggéey. Mm-hmm. parce que li ma wax rek maanaam am na sama benn son ci doomu dëkk bi maa ngi koy wax. Mm-hmm. maa ngi naan liggéey liggéey daa wax kàddu noppi yow la ñuy dégg. maanaam liggéey daa daa ko wax kàddu quoi. boo noppee rek yow la ñuy dégg. d'accord kon damay nopp di liggéey. kon bés dinañ ma dégg fi ñu dégg gars yi incha allah. incha allah voilà te noonu lay demee. Euh, kii ñoo ngi ci terme de notre émission. Mhm. Euh, di la remercier aussi ci disponibilité. Mhm. di la naan nooy tàggatoo looy tàggatoo. bon di wax gars ne. ak lan mooy say projet aussi surtout ba pare aussi nga wax sénégalais ci flow bi actuellement comme sànq ni nga ko waxee maanaam comment sa se passe là bon li may tàggatoo d'abord maa ngi kontaan bu baax ci invitation bi parce que fi ñu ko defee nii c'est très intéressant moo tax bi ngeen ma contacter aussi teguma ci baat parce que dama ne bon maa ngi jub compétition mu metti woon torop ñu ñëw tey ba demi-finale kon day naes torop ñu toog expliquer waat lu bëri xam nga invité waat gars yi à ce ñu ñëw support gars yi dolli ñaan yi xam ne ñu ngi ci quoi te pare ñu aussi pour décevoir kenn. pour côté projet yi nag je peux dire bon loolu maanaam àdduna la quoi projet yi dama koy wax chaque jour <laughs> ay di jotaal de passage bu ma ci doon kaañoo <laughs> dama àdduna la quoi parce que liy ñëw bëri na bëri na bëri na instant bii nag wax dëgg dañoo focus ci flow bi buñ ko jëlee ba pare nag incha allah nekk si leneen. d'accord vraiment kon flow bi moo xew quoi. waaw ñu ngi ñu ngi ci focus. xam nga parce que moo moo présent te ñu ngi si quoi instant ci leen focus. waaw bu ñu ko jëlee pare nag incha allah jàll ci leneen. d'accord y a pas de kon euh, King Soxor Xalima ñoo ngi lay euh, souhaiter bonne chance ci concours bi. te am nañ njort que ni di nga ko remporter incha allah parce que bu dee talent bi mu ngi fi mais balaa ñëw tëj émission bi rek dañoo bëgg nga may ñu benn affaire bu ndaw gars yi xam maanaam ak qui ils ont affaire. <laughs> waaw bon kon ñu ñam tuuti rek. tuuti rek. man la may rap. lu ma def day dund même su ma deewee maa leen di seere loo ci biir dun ma di gérer bëri étoile bi déew bu tàkk du ma weere gal gi doon yóbbu dof yu mag yi fan fii la teere nangu ñu dàkk marab yàlla ma ko tere su ma narul dëkkee bomb yàlla naa nekk cere dóor muy daanu làpp tàkke la ma seere defal ma rajo rab moo ma feebar feeñal ma teele mënuñ bokkuloo teritoire bi du parcelle armée wu lëmm la booy bu ndaw bi di gérer dinaa ko def ma bamtuwaat ko def ko rappel duñ ma képp ciy fóot kon damay weere boo bëggee piis léegi sori ma jërul a xartum demuma fenn tey sama tur baa ngi partout fii dara du yolom dam leen a gën a farlu j'étais sous le vent tey maay gën a cartonné garro ayow lii c'est mignon ñoom maa leen dàkk jikkoo fi ñu fi teg ma jël ko lu ñu luñ tegaat ma dàkk jikko man la maa Victor Hugo nanguwoo yow la mito bokkuñu type moo waral même sa waa koñ mën leen tippoo mënoo ci 15 maay ñàkk sama liquide def setama tilim maa yëngal bii rek ci biti buñ defoon meilleure équipe doo wax ba génn Messi man la mélange Neymar Mbappé Mané Chris Messi <laughs> li neex na. Ah, macha <laughs> kon xam naa ni concours concours waratul am sa remporté nga ko ba pare. non non yow ñaan leen rek yàlla baax na incha allah d'accord merci à toi King Sokhor Khalima. <laughs> merci pour la disponibilité. dina mhm. ñaanal bon vent ci sa carrière. yàlla na wéral baat bi. may la lépp loo xamante ne bëgg nga ko fépp foo xamante ne bëgg nga fa àgg rek. Mhm. yàlla suñu boroom jàppale la. Mhm. en parlant de équipe aussi euh, équipe ay ASC yoon wi bu nekk Kébémer di jouer euh, navétane ñoo ngi leen di souhaiter bonne ñoom tamit dem nañ ba demi-finale mhm. actuellement là la ci finale bi lañ nekk nii ñoo ngi leen di souhaiter bonne chance à toute l'équipe de la part de Vito Kébémer mbokk internet yi ñoo ngi leen di remercier laata ñoo pare émission bi nag waa régie lay nuyu di leen ziar bu baax a baax Moussa merci merci à toi sëñ Babacar di leen jox rendez ci beneen émission ak yeneen daanaan jàngeen jëf merci